maa ngi lay la. bii ba waaye Binta Gaye laa tudd. lan nga ci Médoune. ñaareelam laa waaw. d'accord gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xamante ne nii rek moo daal ñëw daal di dal ci seen kaw yan kàddu yu sedd rekk nga ñu mën a jox ci sa boroom kër googu nga xam ne tey moom moo fi ko baax bëgg ay magam ak ay rakkam day kaf day ree liggéey daan doole du xuloo du xeex problème mu jàmbur moo ko gënal problème bëgg njabootam yërëm njabootam mun na xañ boppam mun na xañ boppam dimbali doomu aadama amul benn problème du xuloo du xeex fii ci kër gi xale yu ndaw yi sax mun nañ ko yàggal xale bu ndaw mun na ko fecc loo day kaf day ree alalam boolewu kenn bëgg ay magam bëgg ay rakam bëgg ay yaayam surtout maam ak soxnaam si daf ñu boole ñu bokk ndey bokk baay kàddoom bii baa toppal ci ginnaaw Absa bul nangu kenn ku la jaxaseeg moom lu may wax Absa moom laa lay wax amul kenn ak xaar ma yàlla du xeex du xuloo ku mu joteel ak kurus bi yaa ko tooñ. tiis bi nga xam ne rek moo daal di ñëw dal ci seen kaw. ñun lii rek lañ si am dañ ko agressé mi ngi hôpital ba loolu dong lañ si am. Mhm. jot ngeen a dem ci hôpital bi ngir gis seen borom kër googu. waaw jotoon nañ dem si hôpital ba waaw. ko gisee wonuñ leen fenn foo xamante ne fii lañu ko jam moom jotul waxtaan ak yéen. dafa bànd bopp bi rek waaw waaw rek la waxtaan ak man ana sama yaay ma ne ko sa yaay léegi mu ñëw mu ne ma nama baal nga baal ma nga téyal ma sama doom bu ndaw bi ab sa mooy turandoo ki mooy sama caat ma ne ko yow looy wax nii demoo fenn mu ne ma waa mu ne ma xale bi dafa ma takk bëgg sama téléphone bi nga téléchargeel ko ci ay mike ma ne ko waa bu wuyoo pare rekk joxaan ma téléphone bi gaañ nañu jàmbaar tooñ nañu njabootam lor njabootam dafa di xale bu ndaw demeek dooleem xamul kenn ku dul ay njabootam amul xarit amul àndandoo benn baat kese kaf ree du xuloo du xeex benn baat nga lañ koy seedeel kaf amuta kenn problème ba si ay jabaram sax mun nañu feccal mun nañu defal lu ne dafa baax laa biir dafa laa biir xol bu rafet rafet la xale kii am maa ngi ñaan yàlla nag fi mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge ñun de ñu benn bàkkaar ñu maraluñu xam yan jikko wala yan qualité tey moo la gën a marqué tey sa borom kër googu nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo. lu dul jëm demin bu mu dem xale bu ndaw ñu yàq addunaam yàq adduna njabootam loolu dong moo ñu metti ak dee boo xamante ne dee bu ñu bett la gaañ nañu jàmbaar tooñ nañu jàmbaar. bi nga demee ci lalu hôpital bi toog muy waxtaan ak yow nga xam ne sa boroom kër gii daf lay tàggu lan nga yëg foofu en tant que soxnaam. dara yaayam rek. la ma doon laaj ak doomam bu ndaw bi di ab sax loolu la ma doon laaj te jouru àjjuma bi nee na ma bii dem naa ba armée de tey dama kontaan defar naa sama bërëbu papa ba mu baax mu ne dama kontaan am na lu may yëg sama yaram tey jii billaahi ak kurus bi mu gis benn borom kurus mu woo ko ne ma biibaa jëndal kurus bi mooy jour bi muy ñàkk bakkanam waaw mu ne ma tey dama kontaan lu ma yëg sama yaram bi gëj naa ko yëg ma ne ko lan la mu ne ma damaa dem defar sama bërëbu papa ba kontaan sama xol bi dafa sedd nii la ma wax billaahi wallaahi ak kurus bi. ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di ñaan yàlla may leen xolu muñ bu baax. amiin amiin.